société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di bi simila la xewoon ca juróom benneelu édition salon des startup Afritech 4 point 0 réew mi quotidien xëy fësal ci xëtam gu njëkk tënk ko ci ne MEDES jox nay laaf ndaw yi yore startup te yëngu ci wàll numérique di xarala yu bees yi ci journal bi njiital MEDES ma ngay xamle ni suqaliku gi nu yootu di émergence faaw mu jaar ci xarala yu bees yi loolaa tax mu sumb bi lépp salon ngir jàppale ndaw ñi di lu bi rafetlu ci kàddu secrétaire secrétaire général ba ko fa teewaloon te sàkku ci ndaw ñi ñu gën a yokk seenu farlu ci wàllu économie numérique ndax ëllëgu àdduna bi daanaka ci la tegu salon bi tegu na ci yoonu gën a yaatu ndax réew mi quotidien nee na ab lëkkaloo léegi tey mu am diggante Afrique 4.0 ak salon slash bay am ca Helsinki ambassadrice bu Finlande ma teewoon ca salon démb ga dëggal ko ne moom sax fas na yéene taxaw ci loola ba mu sotti njiital MEDES ne bu sottee nag njëriñu ndawu Sénégal réew mi faaw mu jaar ci xarala yu bees yi ngir mu jëm kanam loola waral muy sàkku ci nguurug Sénégal mu gën a jàppale ndaw yi yëngu ci wàll wi lata état MEDES moom tàmbali naa jàppale ndaw ñi ndax journal bi nee na démb ñett ña ñu tànn seeni projet gannaaw jongante wa amoon ci seen biir jot nañu ay chèque diggante cinq cent mille ba ci un million njiital MEDES ne mooy seen wàll ci jàppale ndaw ñi ba nu mën a door seenu liggéey duudu ndiir moom wàllam wéy na ndax jokkalante na léengay démb ak Abdoulaye Silla réew mi quotidien Abdoulaye Silla nee na daal yen wi moom xam na ne du yomb waaye nan ko ko yene moo gaaw ci gëtu bés bi le jour journal bi nee na jokkalante gi moom ci fast track lanu ko def maanaam danoo barali jéego Abdoulaye Sylla yenn kaay bi nee na démissionné na ca conseil constitutionnel buñ sukkandikoo ci Badio Camara paluk Abdoulaye Sylla gi ca Sénat nag bés bi le jour nee na mbiram Ousmane Sonko gi tax na ñepp bàyyi ko xel la mu wax ca mbiram Ousmane Sonko moom Abdoulaye Sylla le Vox Populi xëy yeggeeñu nee na daanu xool dossier ya def ca la ca yoon santaane fàttini bala nga naan naam ne fa ku nuy jox say àq na la koo jox ndax yayoo nga ko waaye nee na daanu def seen kéemtalaay kàttan ba képp ku nu mën a fal say àq kenn du ca teq lu tol ni tarfatal ay ni lu jëm ci élection présidentielle bi nag neenu daanu fexe ba candidat yépp yem chance élection yi tam nekk élection yu leer ma ngay fàttali moom Abdoulaye Silla ci Vox Populi ne Sénat lay liggéeyam mooy saytu ñuy organiser élection bi ba nu méngoog li yoon santaane élection yooya nag Boubacar Camara dafa bëgg dàq ko Ismaïla Madior Fall di ko tontu ci yéenekaay bi ne àndu ca tey àndu ca ëllëg te itam état sàkkuwu ko ci Walf Quotidien Ismaïla Madior Fall dolli ci ne dàq yooyele élection buñ ko tegee ci wàllu yoon luy jafe lay doon sudul ñu andi ay coppite ci constitution bi Boubacar Camara moom booba jamono ci ma ngay wax fa mu teg càkkuteefam ngi ngir ñu dàq élection yi ak yenn coppite la nar a indi ci taxawaayu président mi mandaawam di jeex avril 2023 docteur Babacar Diop moom ci le quotidien naan man pare naa ngir doon gelawaar bi daa bëgg a marqué histoire maanaam def fi lu taarix dootul fàtte ci lu ma jambal jaañ bit moom meeru Thiès ma nga naan opposition bi danoo desee ñor njawit ma ngay desu xambin ci ni nu yoree alalu réew mi ndax docteur Babacar Diop nee na fii ay mbir yu mel ni yu maam mbay ñaak Mansour Faye ñi ngi am ci Sénégal gi développement moom dañ koy dégg rek waaye duñ ko gis Macky moom ci développement wu Kédougou la taxaw ndax enquête nee na juróom benn téeméeri milliards la fas yéene def ca booba lépp ñaar téeméeri milliards la bëgg a génnee diggante 2024 ak 2025 46 maanaam at mu jot enquête ne nu loola nag Macky Sall lam ca jubloo mooy faj góomuk émigration clandestine di mbëkk mi ndax Macky nee na ñiy faatu ci géej gi bari na lool te itam yëf yi faaw ñépp taxaw ci l'info ne kon Macky am na solution ci mbëkk mi ci journal bi moom njiitu réew mi ma ngay yëgle ab programme spécial nee na it nanu waxtaan ak askan wi waxtaan ak jur yi waxtaan ak ndaw ñi fexe wutal leen liggéey ba mbëkk mi dakk ndax loola mu ngi gaañ Sénégal di gaañit Afrique wàllub infrastructure laas ne dellu siwaat na ci lépp ci tournée économique bi mu doon amal booba lépp tournée nag Aminata Touré koy ŋàññi ci le quotidien ndax nee na Macky Sall ci njeextalu mandaam bi war naa leneen lu dul di campagne li ko war mooy fexe dakkal mbëkk mi tax ndawi réew mépp des ci géej gi ak njëgu dund gi wéy di yokk waaye Macky ngi mel ni ku ko déggut ndax le quotidien nee na ma ngay def bilangu investissement yi ca Kédougou la mu fa liggéey yépp moom njiitu réew mi ma ngi koy nattaka saytu booba jamono Walf Quotidien càmbar cong yi mujjee tege ci kaw candidat wu Benno Bokk bokk yaakaar bi jàpp ca cëppaandaw la ne APR mooy adversaire bu njëkk bu Amadou Ba ci biir journal bi docteur Abdou Khadre Sanoko analyse politique di yokk xar mi karaw ne leer mooy Bibi Baldé ak Jules Diop moom dëbbuñu rek wax lañu wax la muy njortu moom boroom xam-xam bi ci wàllu politique mooy lii du lu naqadi président Macky Sall moom Amadou Ba mi Macky Sall tànn nag ngir mu doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci Sud Quotidien Jean-Charles Biagi di jàngalekat ci wàllu politique wane nañ ne dunu ko ak cong yi ñu mujjee def ci kawam moom Amadou Ba jamono jooja ci Dakar Times Samuel Sarr di tuumaal Mactar Cissé ne cong yi nuy songu Senelec ak West African Energy moom moo nekk ci ginnaaw baaraam tuuma ju leer nañ la ko joxoon ci journal bi yemook ci réew mi quotidien Innocence Tap Ndiaye di ñaawlu ak naqarlu taxawuk bato Aline Sitoé Diatta gi doon daw diggante Ndakaarook Sigicoor la ko waral mooy gàllankoor yemu jural askan wu Casamance Casamance googa nag Anta Babacar Ngom moom la wutali jëm ci élection présidentielle yu ñu jëm buñ sukkandikoo ci Walf Quotidien ca woowale waxtu 24 heures naan ñu buggaan moom ngànnaayam gu mujj ñeel élection présidentielle bi ñaar fukki fan ak ñett weeru novembre la koy fësal ab livre programme la bu mu jagleel soxnaam si di Momi Gueye Dany mi ñuy fàttaliku ñeen fukki fan gannaaw bam faatoo tey ci talaata ji libération ne ñu démb ci altine ji ba tey Pape Sané mi ngi ci loxol section de recherche bu gendarmerie chroniqueur bu Walfadjri bi ñu ngi ko teg bu gendarmerie libération mi ñu ko yëgal mag loxo juróomi chinois ay commerçant lanu yu nu jàpp ñuy jéem a rawale fukki milliards ak ñaar yu teg téeméer ak juróom-benn fukk ci million jamono jooja adjudant de police Aliou Faye ak Ndiaga Sarr libération nee na teg na lu leen loxo ndax njuuj njaaj gu ànd ak cëriñtu gunu jaaree tëgg wëndeel téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi million ñañu tuumaal ci fësal lettre bi doon wax ci wér gu a Ousmane Sonko di inspecteur Idrissa Sow ak adjudant Issa Ndione bu administration pénitentiaire libération ne ñoom seen guddi gu njëkk ci kaso fanaan démb démb it sunu gaynde yi tàggatu nañ ca jam ñaajo stade nenu fukk ak ñeent ñoo ñëw Sadio ak Lamine Camara ñoom dañ leen a noppal réew mi quotidien yi dellu si ci tàggatuk sunu gaynde yooya xamal ñu ñu njëkk a yegg seeg ña des Sadio Mané moom desul ginnaaw ci ballon d'or juróomi at yi nu weesu réew mi quotidien gis na ne fukk yi gën a xarañ ca la bokk booba jamono sunu làmb di laaj ana lu dal pikin gannaaw jëllug Ama Baldé ak Eumeu Sène ñaari dimanche yi nu weesu Abdou Bakhoum naan Ama ak Eumeu nag lu ngeen mën a wax démérité wuñu Pala Diop ne